sama ko ci ndax injustice mooy <clears throat> euh, nguur gi ñëw def loo xam ni méngoowul ak yoon descos bu nekk Senegal senegal sénégal tas parce que Senegal dama yàlla de na maa ngi jégul ci li wax mais peuple bu indiscipliné lañ c'est-à-dire ñun ni ñu jàppe ni li ñu mbedd mi parce que bo déggee ñu ne mbedd mbuur la boo déggee ñu ne mbedd mbuur la mbedd bu la bu kenn moomul suñu culture ñun pour ñoom lu buur moom rek kenn ko

manam yeen ñew ngeen def ci seen ñak ñew ngeen ci terre bi ngeen def ci seen ñak def ci seen xaaliss nuñ koy sax us et soin xawma ma nuñ koy wax wala manam def ngeen ci seen xaaliss ak yoy ngeen yam fof mais ngir yalla bo beugé sa communication efficace yow dama la koy wax ci sa intérêt bayil lahas jaañ ay politiciens ay politique non dama parce que bo waxé lo da ngay yak parce que ñi leen di ñewante ak ñi bëgg dugg seen combat fepp lañ far xam nga lim la amna ñoo xamni ne noonu nañ Macky Sall façon noonu boo xam ne loolu la yéné yéné yéné bo taxé ni jox defal nga Macky Sall 1000 signatures sa combat seen yoon nekkatu ci. Mhm. donc sa communication baxu da ngay tek politique bi tek ko feulé tu comprends ben argument ngeen am moy yéen a ngi ci site bi toog ngeen fa def nga fa seen alal pension lañ koy wé ci droit manam fo xamni ni def nga fa sa alal def nga fa sa ñak amna nu muy démé nga jot ci tu comprends amna nu muy démé nga jot ci donc jaar len fofu ngén ngén ngén ngén jaare ko non. et puis qui régler sen problème du parce que président de la République dafa am ñaari jëmm yu ci nek ngén xam ko dafa am président APR ak président de la République Qui régler sen problème du président APR. Mhm. président de la République là. parce que ñaari yëf yu wuute la. <coughs> politique bi dafa nek ni mais mom ci sañ-sañu président de la République am mën na jël décret pour déclassifier forêt mën na loolu moom forêt boo xam dañ koy classé mu déclassifier ko pour joxe ko donc yéen président de la république moo leen intéressé mais pas le responsable politique. voilà Jéeme may mayal Pape Djibril bisimilah mu nu mu nuyoo ci waxtaan